dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te leen ngir dara bañ leen raw mu àdd ak yéen ci xibaar yi mbokk internet info 221 fas yéene woy ak yéen nag jëm rek nag ci kàddu ya nga xamante ni El Malick Ndiaye yëkkati na ko jëm di attaqué nguurum Sénégal ak conseil constitutionnel ginnaaw ba ñu dàkkale candidature ki nga xamante rek mooy Ousmane Sonko secrétaire national bu yor communication ex parti Pastef bi El Malick Ndiaye mënu digérer benn yoon li tax ñu invalidé candidature Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo nag ci moom victime de manigance la noonu la ko tuddee ak i complot ci dossier bu imaginaire opposant bi li ko wutale woon sax ak moom maam maam Mbaye Niang di jëwriñ bu ñu dénk wàllum tourisme ci noonee manquéwul benn yoon pointe du doigt conseil constitutionnel waaye itam muñ sukkandikoo ci moom ñoo jël nag seen i volonté confisquée populaire lu jëm ngir rek mën a écarter nag Ousmane Sonko nag mu doon candidat favori bu euh, cour euh, conseil wala sax nag ci jongante falam njit atum 2024 bi ñu dëgmal dossier la boo xamante ne wàllum euh, diffamation lañ ci sukkandiku ngir dàkkal ko El Malick Ndiaye nag jàpp ne l'histoire retiendra ci atum 2024 réew mi dinañu gis nag vitrine bu bees ci wàllum démocratie juróom-ñaari magistrat yi nga xamante ni ñooy sept sages yi ñoo confecté volonté populaire nag écarté chef de l'opposition bu Sénégal El Malick Ndiaye nag daa demu fax ma ngay nag joxoñ baaraamu tuumal ñi di IGE ak ñi di IGF nag ci personne non existence jamono jooje nag ki nga xamante ne rek moo di nag kii di Birahim Seck di coordonnateur bu Forum Civil ma ngay tontu Ndiaye ne ko secrétaire national nag bu yor communication parti Pastef du comprendre lan moo tax nag Thierno Alassane Sall dugal benn introduit nag ci réclamation ngir candidature opposition bi di Karim Meïssa Wade loolee nag la ci benn candidat bu opposition mun a tenter rek ngir mun a éliminer beneen euh, ci même camp ba histoire nag dina retiendra parti Pastef moo ko fësal ci noonu ex parti Pastef mi ngi xeex ci respect ak règlement démocratique rawatina nag ñu jaay Sénégal nag ci défendre seeni nit ñi nag jëm ci question boobee nag ginnaaw sortie bi nga xamante ne Birahim Seck àdduna ci rek nee na nag waruñu dernièrement pas entendu pour apporter nag ay solution jëm ci wàllu question bi nga xamante ne nag kii di El Malick Ndiaye nag kii di euh, Birahim Seck mi koy tontu mu ne ko monsieur El Malick Ndiaye c'est plutôt la politique politicienne noonu la ko tuddee rejeté Sénégal nag ci donc cette cave abîme de indépendance à nos jours euh, mérité wul lii nag dinañ ci liggéey ba am solo jamono jooju nag ñi fiite Karim Wade ñoom moom ah, jamono ji Guy Marius Sagna moom nag ma ngay sàkku ñi di waa yoon ñu fas yéene bàyyi Bassirou Diomaye Faye exiger libération ci nu mu gën a gaawee ngir rek mu gën a waajal nag lii di campagne de campagne bi candidat Bassirou Diomaye fay nag mu ngi ba tey ji ci loxo waay yoon malgré liste définitive yi nga xamante ne jot nañ ko bàyyi mu bokk ci élection 2024 yooyu face ci situation boobee depuis début Guy Marius Sagna mi ngi nag addu ci mbir mi lu mu bëgg rek ci post boo xam ne fësal na ko nee na nañu bàyyi libéré Bassirou Diomaye Faye ngir ñu mën a wëyal nag liggéeyam ci nu mu gën a gaawee ndaxte ba tey ji mi ngi ci kaso bi waa PDS ñoom nag ñu ngi xëccante rek di méttitu bu baax a baax dogal bi nga xamante ne nag jël nañ ko teg ko ci ndoddu Karim Wade écarté ko ku mel ni Pape Sène moom it ma ngi cay addu dinañ ci nag Amadou baax moom desul benn yoon ci ginnaaw mi ngi tontu ñi nga xamante ne ñooy ay détracteur am ginnaaw ba mu defoon ab rapport ci scrutin yi ngir ñu dàkkal candidature kii di pa Cheikh Tidiane Dièye ak Bassirou Diomaye Faye juróom-ñaari fan ci weeru euh, juróom ñaar ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février combat bi dina am noonu la ko Amadou Ba waxee di candidat bu Benno Bokk Yaakaar jot na prononcé ci décision bi nga xamante ne conseil constitutionnel nag jot na ko amaat di tontu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon sàkku ñu ñu dàkkal élection yi ñaar fukki fan boo xamante ne bu soobee yàlla noonu la ko Amadou waxee dina am te ci ngoonu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ñëpp dinañu xam nag kan mooy gagné ràññee fii ci Sénégal bokk na ca ñi nga xamante ne ñoo ngi ko doon xoqatal nee na nag li taxoon ma def recours dama xam ne rek ñaan ñooñee warutoon mën leen a bàyyi ñu bokk ci élection 2024 yi